ma ma ñaanal réew mi d'abord parce que ñun ci réew mi lañ bokk réew mi mooy li gën a am solo pour ñun ñëpp ñu euh, wér te wérle pense que loolu moo gën a am solo li ci des euh, suñu wéree ba li ba pare yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi parce que jàmm ci la yëpp xëj ñu xam ne euh, une fois de plus.

ait beaucoup de bonheur dans sa vie professionnelle, beaucoup de réussite et que euh, nous puissions nous retrouver ici année après année en bonne santé pour nous et pas pour les nôtres. Euh, que vous-même, journaliste, que vous puissiez euh, avoir une bonne santé, la réussite, le bonheur familial. ak comme dit l'autre là lu def ci poos yi ci la bokk. am nañu ko yàlla defal. jërëjëf merci bien.